neen bañ ñu dal te mooy yëf yi bett ñu li xew yépp mooy dañu jël yëf yi te mu betti leen te ñi fi jóge liñ fi bàyyi waxuñu ko waaw moo tax coono bi bare ñun xam nañ ca lu bare waaye comme kenn boolewuñu ñu nit ñu nekk magum lëndëm rekk waaw ku ñu dajul ñu daj suñu bopp waaw waaw bu ko defee comme ni ko Oustaz Cheikh waxe sant ministre de l'intérieur ndax ni mu defee reen ci gàmmu gi la tax ñu sant ko mooy ka fi nekkoon daaw waaw te mooy Antoine Félix façon bi mu man pour xeex ñu yépp daaw def na ko waaye comme booba maa ngi gis bi muy jóg ci fauteuilam soixante-douze heures lañ ca teg rek ñu éjecté fauteuil ba waaw fekk booba mu di ma yónnee ndaw di ma menacé ni wax leen ko ni dégg na baat bi mu wax ministre de l'intérieur ni ma nag dina ma tontu ci baat bi waaye jotul am jot pour tontu ma waaw ndax fekk ko ci kaw ci suuf la ko fekk waaw keneen ku mu mën a doon it boo ñu bëggee tontu bay boo nga pare ndax yàgg sa fauteuil di ngeen ànd waaw waaw bu ko defee kon nag dafa am loo xam ne fayda rek moo koy def ñu boole sunuy xalaat rek boole sunu yitte boole sunuy taxawaay li Aziz wax nag projet yi mu wax yépp amul fu ñu ci jaarul tudd na nag benn frère ci biir oto bi projet bu ñu mës am bu ñu jëlee góor gi ci guddi gàmmu gi di ko indi champ de course ci la ko beneen frère am di wax ni ko na ma cuisiner pour xam li ñuy xalaat pour daayira bi bu ko defee ma wax ko projet yooyu le ndeke man xawuma ni woon leneen lañ ci jublu ñu ngi ciy waxtaan ak moom ndax il est tellement franc avec moi mais moi aussi parce que fii rakk amu fi mag amu fi nawleeg nawle rek moo fi am waaw bu ko defee kon ah, yu ñuy xalaat bare na mais fokk nga nekk régime bu favorable ak yow waaye ñu nga ca jëm incha allah ñaan rekk yàlla dolli ñu sutura yàlla dolli ñu tawfiq te yàlla musal ñu musal képp ku ñu am bu may wax ku ñu am nag jubluwuma ci murit jubluwuma ci tiijaan ku baax rekk ci biir nga bokk eh yal na yàlla dimbalee ñi fi ñëw ñépp ba ni ñu fi ñëwee ci jàmm yàlla may leen ñu delluwaat ci jàmm te ku fi jógee itam ñaan itam ku fi jógee yaa xam loo indaale moo xam feebar la moo xam aajo la moo xam yitte bu la ñor la ñu ñaan yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla fajal la ko te doo ca am benn coono ndax yomb na ko ci gannaaw benn mag daf ma yóbbanti ni ma sa mbokk yee dëkk ca waa kër maam Matar Penda nee bu ngeen di def seen gàmmu jamono bu nekk dingeen sant ñëpp ba mu des ñoom te wax na dëgg ñu ngi ci tant bi démb ca akay bayit ñu nga fa woon am na ci ñuy soppaliku comme nit nga dend ak ñoom te doo ko xam am na ci ñu nga xam ni duñu wàcc ci suuf ci kaw la ñuy nekk bu la yàlla mayoon nga am loo xoole tuuti rek di nga leen gis ci kaw jawwu ji waaw ku ci nekk ak façon ba ko yàlla maye noonu lay participer ci yëf yi bu ko defee kon de ah yal na yàlla di leen kàttanal ndaxit seeni taxawaay ak seeni intervention lu ama am solo la ci ñun nga ma sa dégg góor gi mu wax ni ku ñu nar a rëkk ñu rëkk la waaw kon nag ñoom it yal na yàlla fay leen te yàlla di leen xiir ci mbaax rekk te di leen yàlla di leen yokkal kàttan ñëpp nag seen taxawaay kenn desul comité d'organisation beeg ñi ñu seqal dayre bi yëpp góor ak jigéen mu mel ni itam bu ñu tuddee MJ sunu bopp lañu tudd ndax capitaine baatu capitaine bi ci boppam mag yéen a ci yem ba léegi xawma li indi turu capitaine lan la dañuy jékki-jékki nit yëpp naan capitaine capitaine capitaine ñu nit ñu ànd ak di ko waxandoo mu lay xamal ni yëf ya fa muy jóge